comme mbokk internet yi ñuy seetaan ci biir wasaare ak la puissance maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey ñu fi gis Boy Sadio dinañ ñëw mu leeral ñu lan moo fi waral teewaay bi fii nga xam ne moom mooy CNG de lutte gis nañ ko fi tey mu ànd ak ay naataangoom Boy Sadio na nanga def Boy Sadio xolu yaay. waaw Amina ñu ngi lay ziar di dolli santaate yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu papa yàlla yërëm ko xaare ko àjjana di ñaanal sama yaay yàlla guddal fanam sama yaay sama xol. waaw man sama yaay daf maa bëgg. Hmm. waaw daf maa juróo pare bëgg ma <laughs> ma gën koo bëgg nag. Hmm. moo tax. booy Sadio lan moo waral teewaay bi tey seen waaw dama ñëw pour régulariser sama combat maak euh, nu mu tuddati sax. <laughs> Batista 2. yow foofu nga toll. yow mi <laughs> man du ma yow. Hmm. waaw di nuyu Sénégal yëpp monde entier di bëggee ñëpp di nuy sama waa dëkk waa Jolof waa Sadio. waa tey Taïfa Bayla Gassane Thiel xam nga tund jolof bi yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar sama dëkku yaay waa jurub jaarax Ndioudax xam <coughs> sama maire yi nekk Niger Casamance Niamey Akades ñëpp maa ngi leen nuyu. mais dañ naa gis bi nga jógee sa combat yow ba tey nga stand stand by gaa yi lu bëggut jël wala affaire yi mu demee noonu te booy Sadio proposé nañ ko fi ay combat mu bañ pourquoi Batista. waaw maag Batista mooy nekk làmb ju neex lamb amateur lamb ji amateur yee ko bëgg. làmb jee tëgg boppam. adversaire ñu doon proposer du làmb. non làmb la parce que ñoom ñëpp ay mbër lañ. mais bii nii nii nii nii amateurs yi ko bëgg. boo xoolee amateurs yi sax ñoo ko dox. yaa ñoom ñoo ko nga jël nii est-ce que xam nga ne revanche. non du revanche de. eh Boy Sadio keroog gis nañ leen yaa Batista fële ca fi nga xam ne. mooy terrain gaal ngeen bëri bëri bu rëy bu métti keroog ba ngay génn am nga loola waaw mais du revanche. làmb làmb la. lii passé paase na. li suñu kanam moo des. Uh-huh. lii passé passé na li suñu kanam moo des. message bàyyi li nga wax. billaahi lii passé passé na. mais yow yow yow jox la ay mbër yoo xam ne tey jii daanaka ñoom. man yow yaay xool caméra bi yow. dañ la jox ay mbër yoo xam ne mooy loolu. Uh-huh. lu tax nga choisir Boy Sadio. wala revanche bee tax wala lan. non du revanche bi sax du revanche bi man kii nee naa leen kii kii mooy buur. Hmm. kii na ko ñëpp xool buur de Batista laa xam nga saa boo ma journaliste seetsee wala ku ma seetsi hmm. dama la naan kii mooy buur. mooy buur xam kii hmm. euh, Idi xam na li may wax. parce que kii mooy buur. kii lu mu bëgg rek. askan wi yëpp ànd ceeg moom. kon moo bëgg combat. kii moo bëgg lépp kii lu mu bëgg rek ñëpp ànd ceeg moom. est ce que xam <laughs> ma ko de. <laughs> simple du dóor de. Ah. looy wax ni. xam nga li bu baax li ma wax mu bëri simple du dóor te am ngeen fu ngeen ah, loolu du dara loolu dañoo bëre mu daan ma ci simple bi loolu du dara loolu mbapat la woon compétition dañ demoon pour compétir te man bi may daan damaa bëre daan samay morom ba ba de yegg quart de finale dajeeg moom mu génnee ma. waaw te daanu ma man maa bëri daan sama bopp. foo man maa bëri moom da doon daw man maa dox ci kawam maa ko jàpp maa bëri maa daan sama bopp. nax. non loolu du nax. war a ñàkk la rek. war a ñàkk la rek ñu ñaan yàlla mu yem foofu. yaa ñu ñaan yàlla mu yem fa. yow man dafa mel ni combat bi da koo jël à la légèrement. <laughs> man nii laay jëlee combat man nii laay bëree man amoo problème mu àdduna. man lu gars yi bëgg rek bëgg naa ko. <laughs> bi nga jël Boy Petersen nii nga defoon tamit danga jël combat bi oyofal kon nan daa am lu may wane ay affaire yooyu dafa mel ni combat bi noonu nga ñëwaat. <laughs> waaw mais dama war a wane sama bopp ah buut waaw dama war a wane sama jot na c'est le moment. maa ngi lay nuyu. kon ci Batista nga war a jël wane sama. waaw incha allah ndax maa ngi moom war a bëre. ci kàttan combat musta yomb day xeex day bëri. déggal loolu. loolu nee na neex de. su ma neexee ma ne la Batista moo la ëpp compétition. waaw am nga ci droit mais barrière buñ bu ñu ko tëjee maa may des ci biir. bu desee ci biir. ah après mu neex neex a neex. neex a neex ci ban côté ba. neex ci côté yëpp neex rek <laughs> neex rek. gërëm naa la sant naa la. maa lay bégee Amina borom dëkk bi di sa caméraman. Ibu Ibu Xalil borom wasaare. borom wasaare. sama fans la. <laughs> bàyyi li nga wax Batista da koy mere de. mere na mere nit ku nekk am nga sa nit. Hmm. Ibou sama nit la Xalil. Hmm. sama nit la. waaw ñun ragal lu ñu féete. wala Xalil laa ragal féete. <laughs> jaajëf. acca gaynde noonu <laughs>